chers amis internautes de la Sen Série TV maa ngi leen di nuyu di leen remercier bu baax baax ci ni ngeen di àndee sa su ak sunu ay programme tey seen rubrique décortique dafa ñëw ci série Emprise épisode 34 ñu door ko ak séquence bu njëkk bi ñu gis ni faatu bu ndaw dafa dugg rek ci bureau papam daal di fay sàcc ay dossier ngir nag jox ko yaayam mu mel ni ki nga xam ni moo di faatu mu ndaw euh, bëgg na yaayam waaye nag euh, li muy def euh, dafa nekk loo xam ni rek mënu koo ñàkk def waaye ku ne xam na ni itam bëggul lu métti papam ndax bu sañoon yaayam ak papaam nekk benn daal di ànd waaye nag yaayam euh, ku ne xam na ni moom euh, dafa jàpp rek te euh, fas yéenewul bàyyi te li mu bëgg rek mooy daal di nuir ki nga xam ni moo di Mansour moom Fatou bu ndaw nag ma jigéen bi mu ko fekkee ci bureau bi mi mu koy jéem a ndax comme ni mu koy defee saa su ne rek waaye ma jigéen wan na ko itam que ni ku la mag ëpp la ay sagar que ni itam moo ko moom moo ko gën a muus ndax ñaaw na njort bu baax a baax ci li nga xam ni moom la fa doon def te it nanguwul benn yoon daal di ak moom ngir xeex combat combat bu mu mënti doon mu mel ni kon moom mi nga xam ni moo di euh, ma jigéen euh, li mu bëgg rek moom it mooy féete papaam foo xam ni euh, doom bu góor sax doo féete papaam waaye mel na ni nag du yomb benn yoon ndax lu mu tracé rek am na ñeneen ñu nekk ci kaw ñoo xam ne ñoom ñoo koy daal di effacé ñu jàll ci Masayar ak Kaja ñoom nag gis nañu ni dañuy jéem rek di dof lu ngir nag bañ a wax enquêteurs yi lenn loo xam ni rek mën na leen a taxal mu mel ni xam ni moo di Kaja ndax moom lépp lu mu def rek moom moo ko tey ndax xel mee ko wër ba tax na nag euh, li nga xam ne dugg na ci bëgg na ci euh, génn euh, te nag du ci am benn problème mu mel ni Masayar moom su moyuwul Kaja dina ko tayle ndax Kaja moom boppam moom moo ko ñor keneen ñoru ko kon Masayar ku mu utiliser woon la rek ngir atteindre objectif am ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni ñi nga xam ni ñooy papaayu Sukay ak ay xaritam kontaan nañu bu baax a baax comme koy am moom la jigéen ñëpp di ñaan te boo ko amee yaakaar naa say waajur dinañu kontaan say xarit dinañu kontaan waaye képp koo xam ne yéene na la lu baax yéene la jàmm itam dina kontaan te mooy rek bis ñëw góor bëgg la di indil tranga euh, di la indil warugar te gis nañu ni itam euh, birima bëgg na euh, sukay te it nag indil na ko alal ju bari loolu nag nekk loo xam ne neex na bu baax a baax ci xolu ay waajuram xolu ay xaritam ba tax na nag séquence boobu nekk na boo xam la final ñu jàll ci kenn kenn nag moom daa remplacé Birima ak ki nga xam ni moo di Cordior ci euh, entreprise u Mansour bi euh, loolu nag li ko waral nag mooy moom mi nga xam ni moo di kenn dafa jàpp ni euh, Birima tarul lu dul jigéen tarul lu dul jamono ji sukay ba tax na nag mu daal di jël Cordior teg ko ci place am waaye nag wóoluwul Cordior à cent pour cent ndax jàpp na ni Cordior xaritu jili la te mun na koo trahir à tout moment ndax ku ne xam na ni jamono ji jili ak kenn déggootuñu ba tax na sax moom kenn lim bëgg mooy mooy rey lu jiir yi waaye mel na ni du yomb benn yoon ndax yàgg na di ko jéem uh, te uh, sottiwul uh, mu mel ni kon bakkan ci loxo yàlla la nekk nit kenn mënut a jël bakkanam neexul yàlla sunu borom ñu jàll ci Mansour moom nag dafa tiit ànd ak njàqare waaye itam xol bu metti ndax ki nga xam ni moo di Masayer ak Kaja li ñu def uli la bëgg a xam te nag mënu koo xam te ni mu leen gisee jàpp na ni ñii nii seen ay xel nekkul ak ñoom kon nag mën nañoo def le pire waaye ki nga xam ni moo di Rama moom euh, gis nañu ni dafa ñëw daal di leen di attaqué yàq leen lu mel ni xeme moom euh, Rama nag comme ni ñu koy gisee saa su ne ku laal ay doomam rek euh, laal xolam ba tax na moom yaakaar naa ni rek képp ku laal ay doomam di nga gis bu baax a baax kan mooy Rama ñu jàll ci Kiné Kiné nag moom bàyyiwul tàyyiwul lépp lu mu mën rek mi ngi koy def ngir dajale ay preuve contre ki nga xam ni moo di Mansour mu mel ni kon moom mi nga xam ni moo di Kiné dafa bëgg a bàyyi Mansour waaye nag bëggul rek daal di koy ndax yaakaar naa ni rek euh, nit bu ngeen di sëy yàlla dogal ngeen tàqalikoo ku ne nag war naa mën a dem euh, bàyyi moroomam mu nekk si jàmm mun a defaraat viwam euh, ndax bu dul dara sax doom sosu na ci seen diggante waaye ki ne xalaatul lu ni mel lépp lu mën rek mu ngi koy def ngir dajale ay preuve ngir rek mën a yàq ki nga xam ni moo di Mansour ñu jàll si beneen séquence ñu gis ni Djily wan na Demba War que ni moom rek nekkul koo xam ni mën nañ ko at dañ koy lal pour moom mu mel ni kon moom mi nga xam ni eh, moo di Djily du yomb benn yoon kenn daal di am li mu bëgg ci moom te mooy daal di koy éliminer eh, ndax ki nga xam ni moo di Djily eh, moom dafa taxaw rek ci ay gardam ndax lépp luy ñëw rek da koy suuraale bu baax a baax ñu jàll ci faatu bu ndaw moom nag mu ngi jàppale yaayam waaye gis nañu ni am na tuuti tiitaange ndax yaayam waxu ko carrément li mu bëgg a def te moom faatu bu ndaw bëggul nag ku laal papaam waaye bëggul itam ku yàq papaam ndax bu xamoon exactement li yaayam di def amaana du ko si jàppale ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni Corridor ak Djily ñoom dañoo signé benn pacte waaye Corridor moom mi ngi respecté bosam ndax lépp lu Djily soxla rek mu ngi ko koy euh, defaral mu mel ni kon euh, moom mi nga xam ni moo di Corridor wàccoo na ak Djily Djily nag moom moo des ñu xool ba xam ndax dina respecté euh, bosam ñu jàll si beneen séquence Rama comme toujours moom nag yaakaar naa ni ku laal ay doomam laal ko comme ni ñu ko waxee woon sànq àndatul ak sagoom ndax li mu xam ni ki nga xam ni moo di uli mën na rek nekk ci ay problème jamono ji wala ci ay jafe-jafe euh, waaye Mansour moom gis nañu ni moom euh, raisonnable na moom au moins euh, mi ngi xalaat te it ànd naag dal waaye nag dañu koy comprendre ndax yaakaar naa jëkkër ak yaay bokkul ndax yaay bi nga xam ni moom moo ëmb doomam juróom-ñeenti weer wasin ko yaakaar naa kooku xol bi muy am ci doom bi jëkkër bi nga xam ni nag xale boobu dafa dem ba màgg mu soog dugg ci vie du benn ba tax na rama dañu koy comprendre bu baaxa a baax ndax neexul ñu naan la sa doom amaana sàkkal nañ ko pexe ñuy jeexal ak Kiné Kiné nag moom ñëw na daal di ki nga xam ni moo di Mansour daal koy sax défier euh, menacé ko euh, xamal ko ni rek su moywul dina ko yóbbu police mu mel ni kon moom Kiné euh, li mu bëgg dina ko am wala nag bu ko amul itam dina sonal Mansour bu baax a baax ndax rek moom taxaw na temm te yéen nag fas yéenewul reculer benn yoon kon mbokkente na di fii la yem ci épisode 34 bu série Emprise ñu jox leen dig daje si beneen épisode waaye laata boobu way leen di abonné ci seen série TV te bu leen fàtte ba si cloche Roya temps réel jërë ngeen jëf.